nga xam nga sëy pendis sëy tant que amul labat am dox ant yaa ngi comprendre li ñu doxaan mooy ñu dox ant mooy ñu war a sëy man ak yow ñu génn même bu dee un an xamante voilà xam mhm. nga xam ma ma xam la ma xam sa jikko nga xam sama jikko nga xam lan laay bañ mhm. man ma xam lan ngay bañ ma xam sa point fort mhm. nga xam sama point faible xam li ma mën ak li ma mënul du dëgg may jël seulement daal ñëw ci sa biir kër xam li nga mel yaa ngi comprendre des fois ma bett la xam nga mais loolu mooy sëy danga boo ànd nit ki la neex ci moom nga jàpp ko la naqari ci moom nga jéem ko corriger parce que mm-hmm. loolu mooy sëy mais léegi nag sëy bi léegi sëyu sëyu feeling la mm-hmm. yaa ngi comprendre sëyu feeling la ak nay neex sëyu xaalis ñu dëgg xaalis waaw mm-hmm. nay neex affaire bi loolu la donc nag te xaalis saxul am saxul ñàkk saxul léegi am na koo xamante ne mën a nekk un milliardaire léegi fakkastalu fii léegi dootul yor si dërëm. dëgg la bu fekkoon xaalis tax nga topp ko da nga koy bàyyi. da nga koy du dëgg mhm. donc affaire bi foofu la. Mhm. ba pare ñu bàyyi recopier bi ñuy recopier. Mhm. nous ne sommes pas des européens. léegi xale yu tubaab lañu. xale yu tubaab lañu. yaa ngi comprendre sëy tubaab. trois mois ngay sëy doyal sëkk du dëgg. léegi sax gars yi dañ koy def soxna am na ci soxna yu bari yoo xamante ni ak góor ñi sax laay wax. da ngay gis xale bi xale bi baax rek. nga ne génne benn un million cinq cent. terale ko ba pare go léegi bëgg naa nga at tamit ci loolu sa gis-gis. Mhm. may yu may yu ñuy fësal. waaw euh, buñ la mayee dix millions nga fësal ko. Mhm. oto nga fësal ko est-ce que tamit ci loolu cat du nekk ci ginnaaw. mais dafa dul sax dafa dul sax sëy bu jaar yoon gis nga dañu waxante dëgg yàlla tax pendise gis nga dafa am ay valeurs yu fi mag ñi bàyyi woon. Mhm. mooy sutura. boo bëggee ñu suturaal la da ngay suturaal sa bopp. c'est important. du dëgg. buñ la mayoon cent soixante quinze millions de francs. am na nuñ la koy maye yaa weer sa bopp. Hmm. dëgg lay tas sëy ba xoolal bañ koy takk ñu ngi koy waxtaane ah nangam diw cat baaxul. du hmm. dëgg nan ko jaar fi ñu ko war a jaaree may la juróomi dërëm sa jëbar sa jëkkër lu mu bëgg na la ko defal. Hmm. mais non defal ndànk man la maa def nii maa may li non am na lu nekk ci suuf. du dëgg. soo amee conseil boo leen di jox surtout rawatina artistes yi. bon artistes yi yu jigéen yi parce que artistes yu góor yi moom sëy tas yi moom bëriwul trop si ñoom macha allah. mais mhm. jigéen yi moom seen sëy tas yi moom comme moom man leen rek laa leen di wax ñoom ñëpp dama leen di wax conseil. wala aar bee métti ba àndul ak sëy. non aar bi dafa ànd xanaa moo artiste moo gën a war a mën a sëy. Hmm. barke Seydina Mohamed ñoom ñii artistes yi di sëy ak tas yëpp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mama Kiné Lam la dàqaway moo la dàq way ba pare moo la gën a siiw ba pare li mu def defloo ko mhm. te musul tas macha allah macha allah mhm. ànd ak jëkkëram nekk exemple muy neex mu ànd ak moom bu dee voyage ànd ak moom def ko ménagère am mhm. fu mu toog gërëm ko nag fu mu toog gërëm ko fu mu toog tudd dogo bu baax mais parce que loolu mooy loolu un artiste exemple nga war a doon dëgg mais waroo nekk nekk jigéen sa sër oyof wala nga nekk jigéen di miir wala nga nekk jigéen di xëm ak xim yaa ngi comprendre mhm. un artiste un exemple nga war a doon mhm. jigéen ñiy sëy dañu war a dëgër këcc mhm. yaa ngi takk seen sër xam ni c'est des exemples voilà ay fans yu lay topp fans yu lay topp dëgg xool ci sunu yaay Kiné Lam bu ñu xoolee ci sunu maman Kiné Lam yàlla na ko yàlla sàmm lafal ko cet bàyyi ko sunu kanam en tout cas exemple la pour képp kuy jigéenu artiste bu war a way parce que bu dee way yéen ñëpp moo leen dàq way benn ah, bu dee personnalité fi mu dem kenn demu fa du dëgg. bu dee jàng bu dee jàng jàng na ba hmm. pare loolu mooy exemple. Hmm. man foofu laa leen di wax nañ dem seet sunu mama Kiné la am hmm. ñu def ko référence. voilà. c'est important donc je rappelle toujours que vous suivez votre émission Sénégal VSD te nañu fi dalal ki nga xamante ni moom moo di Gorgui Ndiaye Gorgui nag réccu ma benn yoon li ma la invité <laughs> parce que boobu ba nga toogee fi ba tey yaa ngi yëg ci ay kàddu yu am solo non man sama dëgg dama bëgg kuy wax loo xam day jëriñ rek waaw man dëgg rek c'est important voilà ba tey ci wàllu actualité laata nag euh, ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy sa carrière nga dëkk Tëngéej mm-hmm. naka élection yi foofu locales yi euh, dëkk bi yëngu na ubbi nañ campagne bi waaw gaa yaa nga ca moom mm. gaa yaa nga ca yéen artistes yi temps da ngeen di politique kan ngay supporter bon man nag euh, je ne suis pas politique waaw politique gu amul koy jàppale foofu ci man man man xam nga man man man maay risque. Hmm. waaw su ma faree fenn rek mën naa ne. li ci des mën nañ bañ a campagne man risque laa féeteel. Rufisque la féetee ku fa nekk mais daal bëgg nga. non. Hmm. ki gën ci Rufisque waay. Hmm. gars yi xam nañ ko. muy xam nga Pendis. tey moom may naa la nga campagne sama plateau bi. waxal la sax <laughs> politique la ku la neex parce que man tey yow yaa ma neex. donc yow doo def baax waaw mais mais c'est-à-dire nag euh, tey euh, man dama respecté ki nga xamante même ki nga xamante ni ñaari nit la am. Mm-hmm. ku yëkkat sa loxo rek respecté naa la. la parce que am na loo xamante ni yaa ngi koy bëgg te je crois que képp ku ne dama bëgg nekk maire. danga bëgg defar moo tax nga dëgg la dëgg la mais nag ñëpp mënuñu defar am na ñoo xam ne ñii dañoo am xam-xam yaa ngi comprendre mm-hmm. xaalis yaa ngi comprendre mm-hmm. ñii muusuñu hmm. donc ñëpp ku nekk da nga yëkkati sa loxo mais nag public bi nga xamante ni yow yaa war a tànn yaa war a jël hmm. mais yaay xool ki nga xamante ni baax na ci dëkk bi parce que hmm. Rufisque ñun Rufisque dafa feebar Rufisque dafa bokk ci quatre commune yi dëgg la Saint-Louis Dakar Gorée mais tey jii tous les trois villes dem nañ bàyyi tënge te loolu du yoon te du yoon te bu dee xuloo ñun dañuy xuloo dañuy xeex ñoo dàq politique Sénégal te politique mayuñu dara mun cette fois-ci occasion bi également très donc c'est la bonne li ma wax mooy nañu xool ku am xam-xam. Mhm. nañu xool ku jàng ko xam buñ ko joxee suñ buñ ko joxee risque dina ko defar. Mhm. du fa nekk di xuloo di xeex ak a mer. Mhm. du dëgg voilà man man conseil boobu laa moom amoon na ci ay yenn yu di sama mbokk artiste également naka gisee woon candidature waaw donc moom moom euh, vraiment dem naa seet dem naa meeting am sax. dem naa meeting am. donc daal li wax mooy. li ñu bëgg ci Tëngéej daal mooy. Mhm. Tëngéej boo xamante ni Aline Badara Mbengue. Mhm. Rufisque de Aline Badara Mbengue. le Rufisque de Ousmane Socé Diop. Mhm. le Rufisque de Ngalandou Diouf. wallaahi le Rufisque de président Mbaye Jacques Diop. le Rufisque de Kora Doudou Mbacké Fall. c'est pas des illettrés. ay nit na loo xamante ni. waxuma la sax Tëngéej mais ñooñu kenn ku ci nekk mun na ko doxal Sénégal. Mhm. voilà donc ñun on a besoin de Rufisquois yoo xamante ni ah mën nañu doxal Tëngéej. d'accord.